jërëjëf maa ngi leen di nuyu ku nekk ak sa tur ak sant waaye waaye boobu nag wax dëgg yàlla su ma ko dégg damay jàpp ne da ngeen kókkali rek ndax xam nga ne ku bëgg ku àndal la leen waxati sax ñeme yàlla yéen a ñeme yàlla parce que ba ma saxlaa <laughs> defu leen ko defu leen ko waa mbokk yi dama am démb ci guddi lu ma dégg loo xam ne wax dëgg yàlla moo tax sama ñëwaat ndax dama waxoon ne man sama wax su ma ko xasee ba wax du ma ci delluwaat parce que li ma wax nag dafa am ñoo xam ne dañ ko diingat dañ ko diingat parce que dégg naa ñuy def ay deba naan waa euh, contre euh, plainte contre x bi fi ma ko teg am na ñu ne ñoom wax nañu ne loolu amul waaw léegi ne bu fekkee ne ñoom juriste li ma wax amul nañu génn ñu def débat parce que dafa loo xam ne tamit dañ ko a waxtaanee Sénégal benn bopp la kenn mën na ko xar ñaar ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu jàngee waaye am na ñoo xam ne seen expérience dañ ko dem uti gën ko renforcé man baro de Paris xam na ma baro de pare xam nañ ma man du ma avocat boo xam ne damay ñëw rek pour jéem a ut ci dara ci client bi parce que man loolu tax maa jóg dama maîtriser juridiction dama ko xam dama xam juridiction dama xam juridiction kan mooy ma dikk ñaar ma dikk ñaar mooy avocat maître Ablaye Wade Ablaye Wade lan la avocat la <laughs> avocat la ñu bëri dañu fàtte président Ablaye Wade avocat la avocat la pour di ko layal xam nga ne loo jàng jàng sa jàng na ku mu koo xam ne mën na laa défendre maître la avocat la ñaata avocat ñoo nekk Sénégal mu taamu ma ne ma na ma ma dikkee ma ne ko ñang mu ne ma yooyu yaay gérer sama lépp ëllëg bu jolo jolo amee sama diggante ak doomu aadama yooyu yaa may layal. ñaata laa gagné ay procès yoo xam ne président Ablaye Wade da ko doon da ko da ko gagné juridiction dama ko xam dama ko xam pas te ku ma ñëw na da nga ñuy def débat national ci télévision ñu toog wax la ko lu tax ça n'existe pas parce que amul ah ah salaamaaleykum dama ñëw fii ci kër gi salaamaaleykum ñu ne maaleykum salaam ma leen waa alaxam laay laajte ñu ne foo ko xamee ku alaxam <laughs> barki di maa ngi ajaa xujja naka ajaa xujja <laughs> xam nga nit ñi dañuy dañuy gis ak doomu aadama duñu comprendre alaxam mooy koo xam ne kenn xamul kan la waaw léegi nag su ko defee le président de la république Macky Sall la ma koy ñaan rek mooy cooli nañ ko fay parce que jaru ko jaru ko piqûre yaa ngi nan nga commandé ko war ko jëlee tey aéroport deux cent mille piqûre fu mu ne nii sax tànn ñu ko topp cooli topp cooli bañ fàtte pikiru xam nga fu mu ne Sénégal dafa am ñoo xam ne dañuy taxaw nga wax dara ñu ne waa loolu amul mu dikk ñaar li muy défendre loolu amul nañ ko génne ah, nañ ko génne Doudou a porté plainte contre Fatou parce que Fatou existe waaye Doudou a porté plainte contre ex ana ex xamul kan la ba ba koy xam ba bañ koy xam koy xam waaye léegi nag boobu ba bañ koy xam la mm-hmm. waaye boo demee ba ne diw di nga woyu si dañuy lever sa élément sa sa sa muraay sa kër laay kon kooku xam nga ne mooy ex kon soxlu ngay wax ex parce que ah ci li nga xam ne moom mooy juridiction juridiction décret ak juridiction loi dafa am loo xam ne il faut nga xam na koy défendre parce que parce que ala xam moom ala xam la nag ala ana ko duggoon fii ñu ne ka xam kenn xamu ko sama portable fii laa ko tegoon ana ko ko jël ñu ne am na ko mais kenn xamu ko ala xam. constitution article 1444 loi 12 ko génne te loi 25 day bañ parce que day siisu bu loi bi siisoo rek décret bi day taxaw bu loi bi siisoo décret bi day taxaw parce que article 4004 décret hors loi constitution 12 nga xam ne dafay weng day wete ñaamu day bañ parce que dafa am loo xam ne nit ci a koo a am loo xam ne nun ngay doxalee parce que sagesse dafa am solo man na juridiction dama ko xam dama ko miin dama xam lan mooy juridiction bi ñu njëkk a ci leçon dañ naan la juridiction et la jurisprudence boo xam ne da nga koy xam ci dignité ak loi yi nga xam ne mooy modifier constitution parce que constitution le président de la république mënu ko modifier te jaaru assemblée nationale mais contre x waxuma Sonko mu ñëw ma nekk avocat parce que dama ne x mooy ala xam kan moo ko siisu lay def article 25 mooy ñëw kon nañu waxante dëgg képp koo xam ne juriste nga avocat nga war procureur war nga loo xam ne da nga xam nga bëgg ñëw ñu def débat contre sur débat bi dama lay gagné parce que parce que code 12 loi cinq moo njëkk taxaw 12 naka dama lay fekk si décret de loi boo xam ne dafay fekk nga am identification flagrant délit kon day siisu day siisu. juridiction dama ko xam xam dama ko xam ko xam yàlla dafa jàmm di xamal nag waa nag képp koo xam ne nag avocat nga te man la ma jàng rek laa jàng enaam laa jaar jaar ci école def barreau de Paris défendre ay dossier d'affaires nekkoon ministère des affaires étrangères xam relation bilatérale dama dikk yëpp dama ko géré <laughs> waaye ex mooy ala parce que dafa am loi yoo xam ne dafay bañ day siisu du nangu day wete ñaamu